Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf Rewmi FM groupe Rewmi Network ak groupe Promo Consulting yëpp yeewu démb ci ab tiis li ko waral yéeni kay Rewmi Quotidien di ñu xamal ni kenn ci ay liggéeykatam Léon Paul Mendy ñu koy dàkkantele di jee boy boy démb moo daal di dëddu àdduna mu nekk ak tiis bu rëy ci kër gi li ko waral bokkoon na ci moom Léon nekkoon na ki ñu ràññee lool ci li nga xamante ne mooy liggéey bi doonoon technicien bu xarañ lool waaye tamit animateur bi nga xamante ne maninam wane na ko fu nekk kàddu ak baat bu neex ba yiw oyof te yaatu yàgg tamit lool ci kër gi moo tax njiital kër ga di Mbagnick Diop jàpp ni lii tiis bu rëy la ci moom ndax kàddu kàdduk Léopold Mendy bi nga xamante ne dootu ko déggati ba faw kàddu yu Yérim Seck daa di yëkkati tax na ba mi quotidien du ñu xamal ni moom taskatu xibaar bi ba nu ko convoqué ca division de la cybercriminalité mujj nañ ko denc ca gardaaw yéenekaay groupe Rewmi Network bi di xamal ni tamit Bougane Gueye Dany tey jii ci suba lañu ko convoqué foofee ca division cybercriminalité les échos di xamle yi tamit ni Bougane Gueye Dany Cheikh Yérim Seck Diégui Diop ci boppam jamono ji ñoom ñoo nekk ci gëtub justice ndax Yérim sekk mi ñu denc garda wi Diégui Diop dafa am liberté sur convocation waaye bu Bougane moom tey jii lañu ko war a déglu Bougane mi ñu war a déglu daal dinay wax ba noppi ndax li mu yàkkul kii di premier ministre Ousmane Sonko daanaka daf ko fàtte moom njiital de médias ne lu nu koy toppee ak tuumal yépp du kenn ki ko waral ku dul premier ministre Ousmane Sonko Vox Populi ne kon convocation moom bëri na ci wàllub yoon mu mel ni machine police bi ci boppam moom mooy daw jamono ji yëf dal daal yëngu na ca cybercriminalité bu ñu sukkandikoo ci critique yéene kaay mi di kat ci yooyu les convocation ak tamit Cheikh Yérim Seck mi nga xamante ne denc nañ ko garda wi ndax kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko Macky Sall mi bëgg a yëkkatiyaat parti bi di APR ak opposition bi l'observateur mu mel ni ni ku ci am njàqare lool li ko waral yéene kay groupe Futur Média bi dafa gis ni dogal bi njiitu réew ma woon jël daa di dellu siyaat ci langu politique gi bëri na lool li nga xamante ne moo ko ciy topp ni ay risque ñuy gëstu ak jàngat ci wàllu politique gis ni ndonowu APR ci boppam jamono ji dafa mel ni moo tàggatémbe ba tax ñu jàpp ni bu fekkente ne Macky Sall ñëwul ci terrain bi def campagne mun na nekk lajji bu métti bi nga xamante ne moo koy xaar ak parti parti Pastef tamit mi jël dogal beddeeku jëm ci élection laaj ba xam lii dëgër fit la wala xaru bi nga xamante ne Ousmane Sonko ki ña ñoom dañ ko fas yéene def li ñu fas yéene def ci organisation élection législative yi moom la enquête xëyee tamit ni ki ji di xam le ni démocratie ci boppam lu diis la ci gafag ak réew mi yéenekaay bi di xam le ni kon lu toll ci juróom-ñetti junni ak juróomi téeméeri million de bulletins moom la ñu defar ngir ñeent fukk ak juróomi liste yi nga xamante ne kon ñoom ñoo ne moom la ñuy jëfandikoo nag ci législative yi daanaka boo xaymaay li ñu koy milliards ci suñu koppar moo tax ñu bari jàpp ni war nañoo xoolaat format bi ci boppam def ko mu nekk li gën a yemambaay bu ko defee mën nañoo dikkee lu toll ci juróomi milliards ak lu tekk li yam ba am yéenekaay bi mu ngi ñuy xamal ni njëgu candidat yi moom ci élection législative yi lu diis la ci koom-koomu réew Sénégal état moom jàppoon na ni payoor ay liggéeykatam dañ ko war a wàññi xibaar la bi nga xamante ne waa PIT ñoo ko jibaloon waaye loolu gouvernement bi ci biir yéenekaay bi di Le Soleil daal koy weddi yemuñu sax ci weddi bataaxal bi nga xamante ne yéenekaayu bi daal dina koy becc ne ñu kàddu yi nga xamante ne waa PIT ñoo ko daal di fësal dañu koy méngale ak désinformation waaye tamit fësal kàddu yi nga xamante ne dara du ci dégg ba noppi di jaxase xelu askan wi gouvernement bi nag nee na loolu du ko nangu benn yoon lu ñuy xaar ci gouvernement bi dëgg mu ngi ci biir Sud Quotidien mooy wàññiteeg njëgu dund gi nga xamante ne dañoo jàpp ni yokku na ba jéggi dayoo donte gi ci boppam jël na ci dogal ngir stabiliser yenn ci ay njëg ngir jàppale gouvernement ñeel koom-koomu réew mi ak dundinu askan wi l'info yéene kay ne secteur privé bu Sénégal ci boppam ñoom ñëpp dañoo fas yéene def ab say boole seen doole moo tax seen ak CNES daal di def say ñaari kuréel yooyu tamit di rafetlu waxtaan wi nga xamante ne sekk nañ ko ak waa MEDES ngir fexe ba yaatal seen kuréel gi bu ko defee kuréel yi mag yi ëmb secteur privé bi yépp ci Sénégal mën a lëkkaloo ci seen biir le quotidien tey yóbbu ñu ba ca dande maayo di xamle li foofu ay mu mel ni gox ba ci boppam jamono ji dañ ko xàjjale ak li des ci réew mi njeexintali nag ci wàllu wërgu-yaram ba ci sax wàllu dundinu askan wi foo ko nat daanaka weesu na ko Abdoulaye Sima moom nataat na boppam démb ci Ligue des champions Rewmi Sport di ñu xamal ni Rewmi Sport dikkaat ci jongante bi nga xamante ne Brest daf ko sekkoon ak Salzbourg niki démb doomu sénégalais bi wane ci boppam ñaari but la daal di dugal ba tax clubam bi am ndam lu yaa ñeenti bal ci dara tegle ñaareelu ndamam